Iran yow dafa mel dañ la gis nii de ngay ranger bagage kii waaye dem nii de. man dëgg maa bett ma witt ba par doon dem marché fii rek hmm. sa mét mais laa bëgg yóbbul jaxatu nii yóbbul si kaw nii rek waaw. waaw. Ah, non du ma déranger loolu tax mën naa ah, ko boo bëggee nga topp ñu dem hmm. waaw. waaw léegi topp ñu dem ñu damaa nekk si waaw bañ a tardé. waaw ah, incha allah ñu dem. aca dem li wax baal naa quatre kilos Aja, ya sini beli salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV ñu ngi leen di jaajëfal amati mbégte ak kontaan tey ñëwaat seet sunu grand ki nga xamante ni wax dëgg yàlla ba ñu ñëwee bii passé seet si ko bon gis nañ ay retour yu bëree bëri bëri bëri bëri yi nga xamante ni bon mbokk internet yi def nañ ko si moom lu ci mel ni ay seede yu rafet ñenn ñu ngi naan moo leen yaroon ñen ñi sax di laajte kontakam ndaxte gëjoon nañ ko gis gëjoon nañ ko dégg comme ñu ko comme ni mu leen ko waxee woon rek ba may ñëw ba may ñëw fii ni ah, dama daan dégg Iran xaw ma Iran dama daan dégg Iran mais mosuma gis Iran jour boobu may njëkkoon ñëw fii su si laay soog a gis Iran te pourtant turam yàgg naa kaa dégg ñu bari tamit ñu mel ni man bon gis ngeen à travers commentaire yi nga xamante ne am na si internet ñoom tamit ñu si mel na ni man bëri nañ donc mu nekk nga xamante ni war nañ ko découvrir sénégalais yi war nañ ko xam adduna bépp war nañu xam Iran parce que am na lu ci bëri li nga xamante ni am na ko comme xam-xam tamit war ko partager monde internaute yëpp donc Iran balaa tàmbali waxtaan bi rek parce que am na li nga xam ne jot nañ jot nañ la si fekk waaw jot nañ la si fekk nga nekk si mais balaa ñuy dugg foofu dañ lay bàyyi nga nuyoo ba pare après boo nuyoo ba pare boo ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ñu ngi lay dalal fii si Pexxe TV. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa àdduna bi yëpp sama xarit yi ma nga a gis ak ñi ma dul dégg ak ñi nga xam xamante dañ ma doon dégg si wax noonu rek maa leen di kii képp ku loo lu waaye def rek si internet bi gis nañ ko liiral lañ ma ko ñii nee nañ wax nañ lii ñii nañ wax nañ lii. maanaam dañ la ko liiral quoi nee na wax nañ la lu. lañ ma ko ne ma wax nañ lii ñii nañ wax nañ lii noonu laa mel ñëpp mënuñoo waxandoo loolu dañ mais man heure mu xëyee comme ni ma leen waxoon rek comme noonu ma leen waxoon rek mun naa xëy ndekkee ba sante mën naa te am na sama xarit yu may laaj tam jaxtu bi ñoom ñoom nee na jaxtu bi moo leen xaw a kii. waaw loolu waaw. waaw lii nu mu mën a nekkee nii dafa yéeme de. waaw lii dama ko taam man lii la si man. wala aja bu ko defee ñu tàmbali. ñoom ñëpp maa leen di gërëm di fay di sant yàlla na yàlla defal jàpp. waaw Iran bi am na solo lool bu ko defee Iran dañuy tàmbali waxtaan bi Iran dañoo ñëw fekk la nga nekk sa tool liggéey bon ñu ñëw bett la ngay defar say affaire pour dem. bon bett bi bon naka la la dikki. waaw di ngeen bett di ma sant yàlla parce que fekk ngeen may heureusement da ngeen fekk ma récolté bay waajoo marché bi ngeen ñëwee te man leen kon ka ànd dem marché ba pare bu fekkee am na leneen la ngeen bëgg laaj ngeen laaj ma ko. liggéey bi depuis kañ nga si nekk. wax naa li ma la nekk fii ba fi nekkee léegi ëpp na 30 ans damay wax 30 ans rek mais xam naa ne li ma fi nekk ëpp na 30 ans. du kenn ku ma fekk dama jàppale mosuma laaj sax nit jàppal wax dëgg yàlla man mosuma laaj nit jàppal man lu ma am maa xoosul maanaam yow maanaam jamono jii nii si marché yi nga nekk di leen livrer pour à ce que ñoom tamit euh, buñ jaayee ba pare ñu delloo la wala da leen koy jox ñu jox la si saa si dama leen koy jox ñu jox ma sens xam nga yéen bi nga ma bettee nii bu ma ba leen bëggoon yóbbu ay marché day jël seen temps ngeen jël sama temps moo tax ma leen sama ñett ñetti client war a jaar pour pour ngeen comprendre ko hmm. Iran rafet na gis nañ ni bon comme li nga wax rek jàpp jaan ak jàpp bar nekkul sa profession nekkul sa liggéey yow xam te mooy si liggéey mooy maanaam bay dundee. mbay bi est-ce que yaa ngi siy gis sa bopp. déggoo li ma la wax man mën maa bañ gis sama bopp nee naa su ma amee juróom fukki dërëm cent franc dama koy sant yàlla loolu moo tax ma loolu parce que instant damay gis bopp man. nee naa téeméer barke alxuraan naa la ko waxoon fee paas wax man su ma am téeméer sax may sant yàlla man parce que moom la yàlla jox si journée bi quoi lu am rek baax na. n dañ daan dégg béykat yi di kaas naan ay ay nguuru Sénégal jàppale wuñ leen xam nga niñ leen taxawuñ leen niñ leen war a taxawoo mais yow est-ce que si ñuy wax loolu man laa leen xam naa ko moom kenn mësuma taxaw moom du kenn ku ma taxaw ba lu ma def aw ma a aw ma fas aw ma oto aw ma kii dama koy dox dox boobu ma doon dox xam nga bi ma nekk xel la lañ ma doon dox bala ngaa daw jàngal dox man damaa jàng dox moo tax damaa jàng dox affaire yi jaaxaloo moom damaa jàng dox chaque jour damay dox di gën a nekk xale ñu bari maa la mag damay dox di gën a nekk xale lii rek boo koy lekk doo gaaw màgget yaakaar naa ne am na solo Issa Iran maanaam bu ñu déggee nga wax mooy maanaam euh, yow béykat yi nga xamante ne ñu ngi wax euh, ñu ngi naan état bi taxawu leen ak yooyu noonu yow bokkoo si ñu ni mel yow maanaam yaa ngi dund sa dund nekk sa lees xaaroo état xaaroo kenn. man xaar bu kenn nit ku sañoon nga am ko la jàppale mais boo yaakaar naan na ma diw jàppale naan di ma diw jàppale rek ndax bu yàggee di nga tardé demal rek ba dee ñëw. jaajëf Iran bu ko defee Iran ñu euh, ñu tëj fenêtre boobu noonu parce que gis nañ ne bon bu am solo la waaye tamit dafa am loo xamante ni tamit bon bëgg naa la ko laajaat euh, ñu waxtaan si dañuy gis ni hmm, Iran da daan rëbb mais da daan ànd ak ay xaj yu bëri muy jàpp ay yeew xam nga di jàpp ay bar di jàpp ay di jàpp ne. di jàpp ne tey jii Iran euh, lan nga ñu mën a wax si maanaam rëbb yi nga daan rëbbi li ci ëpp Iran lan nga doon jàpp ay bar nga ëpp lu muy jàpp wala ay yeew nga ëpp lu muy jàpp. bu dee bar moom par jour mënoon naa jàpp 20 bar 21 bar bu fekkee damaa dem fu sori bu fekkee damaa dem fu sori man caare géej rëbb naa fa mbatal rëbb naa fa komi rëbb naa fa tëngéej rëbb naa fa malika rëbb naa fa falaawa géej waay rëbb naa fa ak yeneen yoo xamante ni ma la toppee day gën mais yooyu yëpp man rëbb naa ko dex meew moom am na sax benn théâtre bu ma gis ay xale di wax naan doomu gaynde dégg naa ñu naan dex inaaw ngee kon ñoom ñoo ma tuddee dex gi dex bi bis nekk tey dañ ko wax dex Iran. <laughs> waaw dëgg wax nga dëgg doo bëggee na ñoom dañuy faral di wax naan dexu Iran te pourtant man tam ba bay nekk xale tamit loolu laa daan dégg dexu Iran dexu Iran loolu loolu tey boo ko déggee lan na lay def. waaw damay kontaan nag damay kontaan parce que lépp si àll la parce que boo xoolee sama photo yëpp sax du ma photo si kër sama àll la boo xoolee samay photo après ngeen xool photo yi lépp àll la man damaa àll quoi àll mooy tool nekk si tool damaa àll quoi. am na ci xam ne dañ naan am na solo Iran ne da nga naan jàpp ay bar lu ci lu ci ëpp 30 lu ci ëpp du moins nga daan jàpp yan bar nga daan jàpp yu ndaw wala yu mag. man façon bar bu nekk jàpp naa ko jàpp naa benn bar boo xamante ni dañuy wax baru 15 ans la bari bi ko jàppee dama ko xëcc mënuma ko génn pour ma génn ko pour te di xam laa def mu ko rendee fi mu nekk pour amat doole ma diri ko xëcc ko mu génn bi ma nattee samay paa sept pas yaatuwaayu biir bi wit ak ñaari baaraam moom la der bi toll yaatuwaayu biir bi laax wax ma la guddaay bi de mën na paan bu ndaw am na ñoo xam ne dañ ko lekk parce que tuur la mais bar am na nu muy demee mën naa ne moo dàq ginaar parce que yàlla ku xam bar di lekk bar oh bar neex na am na ñoo xamante ni seen mbañ seen kii la moo tax nag yem ñëg yemuñu mais ku xam bar gis nga ku xam bar laax la daax calgeenu bar moo dàq si lépp man dama dàqal ginaar moom <laughs> bu mag amoon rek. maanaam Iran kon napp yooyu noonu nga daan napp dinañ ñëw tuuti tamit si li nga xamante mooy sa relation ak ki nga xamante mooy Ama Baldé loolu moom il faut que tey ñu ñëw ñu leeral ci pour nit ñi xam tamit bon Iran mii nii bon li muy wax maanaam tegu na wala tegu parce que ñu bëri mën nañ yaakaar ne Iran mii dafa koy wax nii rek pour am buzz wala loolu noonu mais bëgg nañ tamit indi si ay preuve tey ñu tamit ñëw foofu noonu bari yi nga daan rëbb ak euh, yeew yi nga daan rëbb musoon nga si am jafe-jafe musoon nga rëbb benn bar mu matt la wala mu gaañ la wala yeew. mos naa rëbb ba ma léegi ànd ak sama yenn xarit yu wax ñoom Tafa alam daal temps yooyu ñoom ñoo ma yërëm sax ñoo ne élan dangay war a bàyyi dox bi ñoom ñoo doon indi saret suñu ñoroon dem dañu yéeg sa saret fas yi mbës la tudd suñu yéegee fas bi dem ba Malika waa ci war a rëbb am na benn tool boo xam ne benn paa fu nekkoon def na moom bari ay baru la kenn du ko laal baa bi ñu ngi ko xaw pa jox xaw ma daal affaire mu nekkoon ci ginnaaw mbalit bi soo jéggee mbalit bi rek premier jour dañ faa dem paa bi dàq ñu ne kenn du jàpp bari deuxième jour ñu dem fa tool bi vide ma gis ngan ni bar si digg bi ndeke ay miin tamit mu ngi bi ma dawee ba jàpp bar bi ndeke foofu ay pneu yooyu tàkkoon pneu yi ay gëmm fay la dafa mel ne xalu ndéef nga defee ne fay na damaa faa suñu plonge jàpp bar bi pare sama tànk yëpp lakk ñor gaa yi naan maa waa Iran bàyyil bari man nag bàyyi ko loolu ma a nekk yóbbu rek loolu def naa ko Malika moom. kon maanaam yow maanaam da nga maanaam da nga si fit su ma déggee li nga wax. déggoo li ma wax man affaire fit moom du ma tooñ damay fit ma dama am ñu ngi Iran bi mu tudd laa bañ nag ku ma tooñ may nekk mooy damay xeex ak yow loo mu ëppee dool sax xeex bi du jeex moo tax gaa naan Iran Iran Iran tur bi la jógee am na ñu doon commencement sax bi. comme Iran bi may xam nga nee naa nekk tuuti xale temps yi may ci dëgg damay dégg ñu ay Iran Irak saa boobu la guerre bi tàmbali mais xam nga man kañ laa gën a gën a gën a firi firi sama tonton Iran Ndaw muy waaraat seen seen TV bi ko nit ñi di wax Iran après si ma dégg ñu ma am naa turandoo ku ñu wax Iran dama kontaan parce que léegi dina xaw a kii si man mais mos man may nekk xel ba léegi mosuma dégg sax ku ñu wax Iran xanaa benn grand bi ñu ma tudd mooy ñi ma doon wax ñoom temps yooyu na ku ñu wax Iran tur ba man fa la jëlee. man 86 su fekk ñu ngi may wax Iran kon Iran yow maanaam loolu dinañ si ñëw maanaam sa histoire dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu dinañ si ñëw mais tey li ñu fi indi mooy maanaam rëbb bi ak sa digganteeg Ama Baldé maanaam affaire yi mën nañ ko def ndànk par ndànk pour nit ñi xam kan mooy Iran dëgg-dëgg booy yi nga xamante ni ñu ngi si milieu euh, kii bi nu mu tudd encore euh, rëbb bi maanaam di rëbb ki affaire yooyu noonu kon boo yooyu noonu su ma déggee li nga wax kon maanaam yow boo yooyu say boole te tey booy xool ñoom ñoo la ëpp tur ñoom la gars yi teg nga xamante ni teguñu la kon boo yooyu su ma déggee li nga wax mooy doon tey ma yoruma leen sax mais xam naa ne xaw ma sax bu ma ku ma xam ku ma xamul xam naa ne moom métier bi ma maa si jiitu moom te man nee naa du ma fajkat xam nga lan laa ndigg laay faj waaw mënoon naa am nañ ay xeet nu di ma ñëw énaa mën ngi ne mën ngi mënoon naa lekk seen xaalis mais bëgguma lekk seen xaalis problème ndigg daal moom comme mën moom mais leneen lu ma xam tam kenn mënu fexe ma def mais daal bi ma imposé nit ñi moom ndigg la loolu xam naa moom ku ma ko ju fekk na ma lii naa la ko defal moom waaw rafet na tey lan nga ñu indil maanaam si xeetu rabu àll yi yi nga xamante da nga leen daan rëbb. tey moom lu ma leen indil. bar ak basante. ndekkee itam tuuti jaxasu te loolu daal tey bu ñu duggee bi bu tawee yàlla am na benn bar bu may woo benn boy xam nga nee naa la yéen cukkas bu affaire bari gis na ko si yaanam le kàndem ma simmeeku wan la preuve ñoom nañ futeeku job parce bi yow dong képp yaa ko am. waaw bu la neex ñu dem. ayca ñu dem. la génne de ah. waaw. boobu la nekkoon fii la

bar bi wàcc si yaan bi mhm. léegi bi mu wàccee bi mhm. pour nga jàpp ko nga siyaan nu mu toll kaa xool siyaan bi mu toll nga siyaan bi à peu près ñaar kii la la jox waaw ah, ah, ah yow bi koy ba koy ma la xaar yi yaa ñëwul doo kaay kaay ñëw rek noo xoolal rek eh, bañ dugg ci biir noo doo dugg noo dugg siyaan ngi nga trace bari wàccee bi nga wàccee dugg si biir bi ah gis ñu ne la wàccee dugg si biir ndox bari mu ngi si biir siyaan bi mu ngi si biir fii mu ngi si biir siyaan bi li ngeen na de. waaw garaawul waaw pour la rek. Hmm? waaw pour moom la. bi dugg na si biir. waaw dama xool li ngeen de Ira. Ah? Iran yi ngan na de. Ah, léegi da war a jàpp ni boo bu ma duggee bu soobee yàlla incha allah moom mën naa ko jàppal. bisimilah rahmaani rahim sama fan club jaxtu bi jaxtu baa ngi. wala dinaa ko jëkk xool côté bi defar ñax bi booy kaamal leen yéen di ngeen joué yéen yéen a taxal leen ma fees taw bu ngeen taxaw nii taxal ma fees taw xool xam naa ñemewu leen ko nag mais xool xam naa ñemewu leen ko nag ah mais yéen bu ah. leen ko mu duggaat ci biir siyaan bi waaw dégg ngeen li ma wax sax leen rek sax xool wër leen siyaan wër leen siyaan waaw mu dëgg moom kii nii demal sa kar karal ne booy karee rek bu wàccee rek nga dàqal ko ñëwaat si àndee yaatu moo tax naa damay dëkk yéex côté bi su ma jeexee côté bi nekk bi ma dem xool ko côté ñax bi xam ni léegi nekkul fii xam naa ne mu ngi ñax xaaru génn ci repère mais xam naa léegi nekkul fi Aliou xam na fu mu jafandu si biir kii bi raam si biir ñax yi léegi mu ngi si digg mu ngi si digg bi ba xam naa ne léegi seet naa Aliou nekk xaar ma tàllu tuuti ndax bii dafa bay yow temps booy waaw mais bar bi xool naa el yëpp nekk si léegi di nga gis ñax yi ngay gis si digg bi fala bar bi war a làqatu bar bi da laal naa ko léegi si biir sax de mu si ñax bi laal naa ko de léegi mu commencé déplacer si biir ndox bi mel ni jàpp naa geen gi de. Ah. ah dafa mel ni jàpp naa ko daal li ma jàpp dafa doon roog maam de moom la. jàpp nga ko de ah. waaw. numéro waaw bi am nga ko de. Eh. yaa ngi ak moom de. jàpp nga ko ni. jàpp naa ko yàgg na. dinañ sunu. Mais Oh Maliko, oh, oh, oh la ngay

jaar ku ko fekkewul tar dangat xeexu barak ñoo ñoo jël demal waaw Iran bon dem nañ rëbbi ji ah, jàpp nañ bar bi ah, gis nañ ni bon ni nga jàppee bar bi bon am na solo te yéeme na tamit bon ma buggoon la laaj Iran ah, jàpp bar ak jàpp jaan ñaar yooyu noonu ban moo ci gën a yéeme. ñoom ñaar presque ñoom seen rëbb benn la rek xam nga ba yeew kàmb bu fekkee da ko fekk si kàmb moom du gas day fekk benn kaña ray ko dëkk fa bar day gas bar nag mooy dafa bëgg ndox bar affaire yooyu ndox la day du yéeg yéeg nag mais mbëtt moom du nekk zone bu am kii moo tax waaye bu dee mbëtt ak bar yëpp man su ma man yëpp laa yemal rek boo waxee bar ngi fekk ñoo ànd ma xam ne lii bar la mun naa koo jàpp léegi pët pët wala ma gisal ko sam bopp sam ba ma koy gisee sama yaram day raf. léegi ban moo si gën a métti nga jàpp jaan euh, nga jàpp yeew ak nga jàpp kii ban moo ëpp ay risque. bar gis nga bar. ma wax pour te dire que bu dee bar yi ñuy jàpp fii laa moo tax may wax de bar dalay gajj benn lay matt mën na laa comme ni ko gars yi di waxee dóor geen mais dóor geen gi yëpp ay bu dee xaj la gën a mën a dóor geen geen gi fi mu toll nii moo ko daggoon nii bu ma la ko bàccee nga jooy waaw yow day saf ko la dégg nga mais pour mu dóor yow geen du la yaa suñ moo tax day daw bu ne waaw doo genn kay man maîtrise naa ko la wax naa la maîtrise naa ko doo du ko dóor koy dóor mais du ko du ëss mu bu soobee ah, ah, bañ xam nga man dama ragal damay bañ mu dóor ma fii nii xam nga rek après mu am lu ma def quoi. dara xool dañuy wax rek xool. dañuy dégg damay dégg ñu naan ay bar bula la dóoree euh, euh, genn ki di ngay toog at mu ñëwaat ay muy futt affaire loolu du dëgg xanaa du jàmm de mais bu dee jàmm rek jàmm rek kon de man ñu futtuma man. kon day rax. waaw xanaa loolu kay moom mais bar moo gën a neex ginaar si ma la ko mën a waxee pour wax la bar cal geenu bar nga gis na lii lii ak a duuf moo ko toggoon tey fii woo ñu bari mën ngaa bañ añ seen kër waaw bar moom dañ koy copp rangement comme ni ñi di lekk mbëtt ay jaar ay xojoog ay affaire yooyu noonu kon Iran su ma déggee mooy maanaam euh, jàpp ay jaan ak ay bar ak affaire yooyu noonu comme booy yi ko def maanaam tey jii ñu fës ñu gis leen ñu nekk ay nit yi nga xamante ni maanaam xàmmee nañ leen ñu naan ñii dañuy faj yow maanaam genre yooyu noonu yow yàlla wax naa la ko man dama fajkat leen laa mën su lu may defal xam ne moom maa ngi koy ay nit yàlla di ma si dimbali ñoom ñi ñëw ñëwaat di boole ay client mais leneen lu ma xam tamit sax denc ko wanuma ko nit tamit jàppal na kii mënu ko parce que mësuma koo defal sa personne dama def loolu. waaw demee fee ne euh, di rëbb dinañ ñëw si li nga xamante ni mooy maanaam Ama Balde parce que waxoon naa la ah, sénégalais moom bu déggee maanaam il faut tamit day jar nga def ko nga ji woon ko preuve te loolu tamit yaakaar naa ne tey dinañu ko indil maanaam sa diggante ak Ama Balde yaa yar ak ni nga ko yaree mais balaa ñu ñëw foofu ah, bañ demee sànq si sayaan bi gis nañ premier euh, premier tour bi nga dugg. nga dugg ba nga duggee après nga xool xool xool gisoo dara après nga génnaat. ñëwaat duggaat xool xool nga ne jàpp naa jeen ga jaan jàpp naa geen bi xaw ma jàpp naa tànk yi Iran noonu naka la mën a nekkee nga nekk si biir ndox bar nekk si ndox nga ne jàpp naa tànk beeg yooyu noonu yooyu du risque. wax naa la dama ko tàmm laa indil lii dama ko fawee dama ko man xamul rek bu fekkee xamu ko du ma nangoo dugg na nga woo keneen nag ah nga ne laa bëgg saan bi la diw duggoon kaa jeexal ma ko loolu rek laa bëgg. bu ma duggee première dugg lamb lamb lamb gisuma bari bi lamb el yëpp e gisuma bari bi laa xam ne bari mu ngi si digg ñax bi fara war a nekk comme que boo yooyu taxawoon si kaw man xam naa bu xisee ba yéeg rek bari bi dee ci ko moo tax ma doon tey di yàgg-yàggal noonu di dof dof foofu parce que xam naa ne mu ngi si ñax yi bu dee ñax yi bu bëggee daw ñax yee koy téye moo tax bi ma lambee lamb naa cetu gi jàpp naa ko mais damaa bañoon wax jàpp naa ko mu moo tax ma dem ba téye ko maîtriser ko bu baax door a wax na jàpp naa ko gis naa nga zibilé nga kontaan. non non la may def nga dafa affaire su ma leen lóobee ba jàpp ah, na du lekk bi de mën naa ko kii la ma sonn si nii ah, après mën naa ko bàyyiwaat mu awaat nii dem yoonam pour man la rek ma tax ma nangu booy ak li nit ñi doon wax moo tax rek pour man la man jaar-jaar ni ma fooyee ñii fooyee ko moo tax. maanaam su ma déggee kon booy yi nga xamante tey jii nii ñu ngi si euh, milieu rëbb beeg yooyu ko maanaam yow yaay seen mag wala yow yaa leen formé. waaw ñi ma xam fii de bu zone bii la laax képp ku fi nekk rëbb rek jaar na sa ñi fi doon rëbb zone bi wax ma say mag de déggoo la wax ñi ma passé génération man ma mag la sax topp nga si man wax ma lépp lu ma doon def man dama see boole man sam pula ak sam fay Iran rafet na buñ buñ jógee foofu ñu dugg fi nga xamante mooy maanaam sa diggante ak Ama ndax sénégalais dafa bëgg preuve sénégalais dafa bëgg lu wér ndax boo waxee ne ah Iran mu ngi waaj a dem de du daw <laughs> ok d' accord ah, dafa bëgg preuve dafa bëgg maanaam lu wér lu lu wér te wóor may nga ne bee paas ñëw nañ fi nga ne Ama yaa ko yar donc Ama yaa ko yar mais dama bëgg nga génneel lu preuve yi wane ne yow tey jii nii Ama yaa pour sénégalais yi tamit ñoom tamit ñu xam ne Iran mi li muy wax teg na ko fu wér teg na ko fu wóor. waa gis nga muy def kii bi Ama muy def génn yeew bi entraînement nañ ko ay tàggat naa ko si ba mu tàggat ko li nga gis daf koy ñemee. ñëwul rek di maanaam maanaam ama amaa da nga ko entraîné loo affaire yi quoi. waaw ñu koy def nag ama bu boo xoolee photo bi xamal na ama kon bëreegul commencé na koo def boobu nag ñu ngi dig mais boobu xalaat naa moon li ma toggoon xalaat naa togg bu yàgg. waaw boobu ni ñi daaw a gis sax isa daa gis temps yi nit yor ay yeew xam nga la moo tax ñu commencé génn ay yeew c'est parce que ama yor na yeew daan na nekk na champion ñoom ñu fen ku ñu jox yeew rek champion ga ah ah du loolu affaire du loolu. indiwal benn affaire teel bi walla photo bi benn photo entraînement la tamit da ko doon bii xam lii Ama bu ndaw la ah xool yaa ngi ah, yaa ma laaj preuve kii Ama bu ndaw la photo bii tamit entraînement la tamit Ama bu la yaa ma laaj preuve benn preuve nga photo bii 2010 woon bii laa tudd bii sama jour ngeen bii da laa bii maanaam Ama da la fob quoi waaw damaa fob te xool ba tey man yëpp affaire yi may def nii yëpp àll bi dama naturel xam nga ñeneen da nga leen di jël dañoo kere comprendre fu may waxee. kere mooy lan. seen yaram moo kere. ah ok d'accord. ma yoon kere ma. waaw ah, dëgg la dëgg la. parce que sama yaram dafa dafa dafa dëj. ñoom dañu boo may xool rek naturellement xam ne man yow li may wax naturellement laa la wax. ah ñëw ma toog sa saal di daf daf lu ma toog may saal. maanaam yow ay luxe nekkoo si. déedéet waaw yow. naturel la. dégg yëpp am na si àll bi ñu ngi si kër gi ñu ñaa ngi photo Ama bu ndaw la sama doom ji bi itam 2010 la. bii maanaam kii nga tuddee Ama. kii ma laa tuddee Ama noonu. photo bii ngay gis ni tamit yëpp si boor àll bi la tamit c'est. bii si jour ngénte bi la. ngénte bi gars yi di ko def si ay zone yu luxe yow nga def ko si àll bi. non dafa fees. dal dal dal nit ñi njaboot gi nit ñi ñëw fii de ken xaju fi bàyyi faal ba ngeen ama macha allah xool mbapat nañ fa yoroon naa école football booy joué nañ fa ah bëri nañ fa sikar nañ fa jàng nañ fa arxuraan tamit lépp lañ bàyyi ñu dara foto bi xool kii Jules Baldé junior la moo gaañu yàlla na ko yàlla yërëm kii Géant la Géant mbër sama nekk lay kii ah gis nga kii Jules Baldé la kii Alaaji Mbay la kii Massara sam benn gaan bu nekk fii ay ñom taal kii ak amaam ngi mais bu ma bëggee lim tamit day xaw day xaw jël temps quoi pour bii mooy mbapat gi nga foto bii ama amay dugg si arène bi bii mbapat la bii daan na booy boobu sept fois si jour bi war bi muy bañ mu koy daan di daan rek di ko daan rek maa ko ama yaa ngi koy ndafaaji di ko ndafaaji baal doom ci am di ko ndafaaji rek <laughs> kon ama maanaam su ma déggee li nga maanaam dafa yàgg mun bëre yàgg am doole waa déggoo xanaa li ma la wax si première bi nga fi jëlee man ni ma xamee ama laax ah, ak confiance bi am si moom yàlla na ko la fa cat rek man laa koy wax. ama bu amul gàllaaj sax kii turandoom la mooy màgg ni ama bu ndaw ngi sama xarit la ndeysaan damaa takk moo tax jàngul ma koy affaire kii de yàlla mu dugg si àll di ko xam moom day jàng yàlla. maanaam yow bëggoo fi nga jaar mu jaar fa. mënu jaar parce que àll amtu fi fa natee jaar ma kii ko moom day jàng moom man yàlla na man alxuraan laa jàng jànguma ay kii moom moom bàyyi moom yàlla ko yàlla dimbali rek waaw man loolu laa a wax. nga foto bi ngay gis nii la yow bii la jox Ngaaka Blindé comme li ngeen di waxee noonu. maanaam dañoo gis si clip benn clip bu Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé yor tamit moom tamit ngeew yeew. gis nga clip boobu yeew bi ki ko jox sama booy la. nu mu demee joogin dañoo dañoo jàpp yeew bi mu ngi nii si bi mu ngi nii moo sol zone bi kii ñëpp xam Saliou Saliou Ba Fall ñëpp ko xam moom kii moom ah. dafa dajeeg ñoom mu ngi ko def si saaku ñoom ñuy def clip. ñoom ñu expliqué ko ba man xam sax nga ak beneen rek xam wax dëgg yàlla xamoon kan la mu woo ma téléphone dama ah am nañu bëgg kii bi ma wax rek ñuy def kii bi nee na ma abal kii bi ma ne ko wax ah, garaaw la ndax day yokk kii rek léegi bi mu ñëwee fii la la dama kooku ngaak bi leen la affaire yo kii bi la demee mais ku ne moo jox ngaak bi leen ay yeew ak ay day wax lu ko ludul dëgg du Iran bu dul Iran sax waaw kay moo nekk saaliw la ñëpp ko xam moom yow ma leen wax laa dafa waroon muus xam maa la ko doon fay am na xëy na tam am ñoo xamante ni waaw kay gëmuñu ko gis nga yeew bi xool yeew bi amoon na si zone bii lii nu mu toll moo nekk nii gis nga ko gis nga tan bi tan bi 92 fekk maa ngi koy yar gis nga lii Cité Lobatt Fall kër yooyu boo jégee tali ñëw dugg si boor ko Technopole Cité Lobatt Fall kër yooyu ngay gis yu naas yooyu foofu àll woon lii si tool yooyu la woon boobu afa amatu nag àll bi nag nekkatu fa maasaal lañ ko ba fi ay kër bu yàgg si digg fi kër yi nekk lii fa la woon lii tan bi sama tàll daf moom miinoon di naaw di ñëw maa ko yar sama bopp tan bi nan laa ko amee tan bi maa toog sama tool di liggéey mu naaw céere yi da ko cof nit ñu bëri jamono jooju di ko bëgg a jàpp jàpp-jàpp tan bi daw mu ñëw ba sama tool fek maa ngi doon defar plan mu room ma rek ma lonk rato bi capté ko gars yi daw na tan bi ma leen hey yéen da daw di ko dàq ma daf ma fekk si xëpp si kaani maak tan bi ma sisool laaf yi bi ma ko si joo yar ay 6 mois dindi laa fi bàyyi ko rek tan bi di ma naaw di ma topp tan bi réer na parce que alxuraan la wax pour xamal pour pour dëgg am na yoo xam ne dund ñu ngi dund. maanaam tan day miin kon. day miin tan bi réer na ñuy war a dem rëbbi ma dem ba si àll bi waru daral foofu affaire yi nekk tan yëpp naaw ba mu des benn tan ma xool tan boobu ma ne nii isebeer suñu tan ba tan bi taxaw na de gars yi naan inaa dafa ak dafu man leen daf ma de xaar leen moom. ma dem tan bi xam nga laa ko tuddoon Pedro ma naa ko Pedro Pedro di ko nax ba tan bi ñëw ma jàpp ko teg fii ñii naan daf ko jat ñii naan lii jatuma ko daf ma miin tan bi bi bii tan bi la rek tan bi la waaw moo bi mag baa ngi mais nag li ma doon rëbbi noonu di kii yooyu ay kii amul ay portable yéen comme nii mosuma nangu na ko may wane am naa sama journaliste sama xarit la ñoo bokk sama booy la moom da moo tax mu bëgg lii moom lii daf ko neexoon yor ay archives yu gaa moom doon topp rek dem photo waaw <laughs> kii sama photo doom bu jigéen la aadama sama taawa ngi kii mooy aadama gisoo xanaa gisoo suñ waaw ah, kay kii mooy aadama bi xaj bi ak mën a rëbb macha allah benn waaye ko rey ak mën a rëbb waaw ah boo kooku dañu ko rey sax dafa metti <laughs> waaw defoo ko dara dara sama xarit la xam naa ne hmm. xëy na am islam dafa am feebar xel ni ma ko mën a wax daal xaj romb na xaj bi xaj bi ànd ak moom dem ba si dex bi takk ko bi mu ko takkee suspendre ko si àndi pënu benn pënu la ko takk si pënu bi rek waa diigal pënu bi rek xaj bi diig. macha allah Iran yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo te tamit li ñu fi wax yëpp nekk na li nga xamante ni mooy maanaam njariñ toog a yow di waxtaan ak yow maanaam du mën a jeex parce que li ñuy waxtaan ak yow dafa bëri donc dañ koy def pàcc par pàcc parce que yaakaar ni. ku dégg Iran comme ni ñuy wax rek maîtriser nga Géejawaay maîtriser nga zone Pikine bi maîtriser nga Dakar parce que li ngay wax maanaam fu nekk rëbbee nga fa fu nekk tamit am na loo fa jàppee te fu nekk nag am nga fa ay affaires yi ay souvenirs yi nga xamante ni doo ko fàtte donc yaakaar naa ne waxtaan du yem fii nii dinañ fi di ñëwaat ñu waxtaanaat si yeneen mbir nga éclaircir pour monde internaute bi yi nga xamante ne xamuñu woon Iran wala xamuñu woon àll yi nga xamante ne ñoom ñoo composé Guédiawaye ak Dakar nga mën leen expliquer ñu mën a comprendre à travers chaîne bi nga xam ne mooy Pexxe fa dul fàtte tamit ba tey temps booy dama mës si digg àll bi ñuy rëb ba mu yàgg ma xool biir si salaan yi si biir a biir ma seen fa benn saako boo xamante ni saako kii la saako ciment nga dañ ko takk ma ñëwee tijji ko. xam la mos nekk. ceeb bu tàng jër ceebu jaka parce que yàlla am ay ngandi jën jën yu ñu roof ay jënu coof ay jën yu ngand ceeb bi ah ceebu dijj la ceeb boobu ah lekkaatu ga def naa lekk ma ceeb bu ko dàq de mm. <laughs> waaw. ñoo nga taxu ko si àll rek nga lekk. temps booy ba tey mais gars yi dañuy Iran est-ce que nga lekk affaire ñu ne Iran bu lekkee dina lekk affaire yi man man man danaa coob man bu soobee yàlla ma teg sama ma ne bisimilah rahmaani rahiim Xaalid nu Walid dank ceeb bi niin bat ma dank jënd coob may xaj yi am par benn suñu àndoon par kenn di ñëw par kenn di ñëw ba ñëpp ñëw ku nekk lekk si benn xun. genre yu mel yow dañ leen war a wone pour sénégalais yi xam leen dañ leen war a maanaam tàllal micro pour ngeen di wax tamit pour sénégale yi di xam pour ñi nga xam ne ñoo nekk si monde internet du ñu xam donc Ira tey bu doon la buñ la doon jox kàddu gi naan la waxal sa kàddu bu mujj lan lay doon. man sama kàddu bu mujj li ma def nii xam nga laas jël am na xale yoo xamante ni ñoom du ñu màggee dañuy dégg ñoom ENA ñoo leen def lii fii àll la woon fii lii la woon fii lii la woon par as tuut comme que bu njëkk matériels yi amuloon ñoom ñu jàng si as tuut nit mun nga def lu nekk tam sa doo tooñ doo jël doo def dara ñun suñu génération boo gisee ak ñoom ak yenn kii bokkuñu ñun dafa amoon du ñu doon fawee. àll bi dafa yaatoon amoon na dafa am loon fay ay orage xew rek lépp a ngi fi da ngay dugg si àll bi foo lekk rëbb affaire loolu ñun. suñu affaire bandi boo rëbb boo dégg ñu naan bandi suñu affaire rëbb yooyu mooy bandi bi daal xam nga bi du bandi jël jàmbur man kenn mësul dégg na Iran dugg na si kër jàmbur moo fa jël lii maanaam rëbb bi ak li nga daan duggee si àll bi di rëbb di jàpp loolu moo tax ñu naan wax bandi la mais nekk jëfu jël yëfu jàmbur bay nit ñi doon yara ñun xaj fukk flaawo géej waaye ngay noonu ol xam na moo tax ñu fa doon yar xaj xaj yi demoon na ba xaj bari fii jardin la nit ñaa fi liggéey si tool yi dañuy dugg toolu jàmbur di fi yàq xalaame yi bari iran saxaj yi rus iran saxaj sama xelaat ba léegi comme ma damaa bari xel dama xalaat mu yóbbu xaj géej waaye maîtriser leen fa si flawo yi takk leen fa chaque jour ma leen fay jox lekk tàmbal leen fa ba ñu miin léegi su fekkee war naa rëbbi rek damay dem jëli xaj woo leen rek rëbbi Iran ñu ngi lay jaajëfal euh, euh, si waxtaan bi nga xamante ni def nañ ko la wax ne moo dinañ fi ñëwaat nag. waaw incha allah maa leen sant di leen gërëm. am na de. sama aada aada kay du ma ak amaama aada mooy sama taaw. Awa Mass Top maa ngi lay sant di la gërëm si internet bi képp ku si wax lu baax ak lu bon yëpp maa ngi lay sant di la gërëm yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal jàmm naa bëgg tamit ngeen yeewu yalla nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla yërëm at ñu seen mu dem loolu rek fi nekk moom du leneen